moo tax a jug boroom dañ koo sib wa saydu rëbb nag li lax laxwi ci lu fo mu baaxul lu dagal la rëbb goo xam ne foo taxut loolu mooy lu dagan maanaam mën naa nekk teewul nag léeg-léegi lu ñu sopp ko léeg-léegi mu xaraam bu fekkee da rëbbu te li ngay rëbb ci ngay dundee yàgg sa njaboot rëbb googu dafay war kooku lu war la ndax dundal sa njaboot daf laa war bu <coughs> dee da ngay rëbb pour saraxe wala nga bëgg a saraxe njëg ga wala nga bëgg sa njaboot dund ba gën a neex rëbb googu dañ koy sopp bu dee da ngaa rëbb nag ngir téera bu ngay rëbb di ko xool ak yooyu di ko sonal kooku rëbb googu dafay xaraam Mm. alquran wane na ne rëbb dagan na ne uxilla lakum saydul baxri ak wa ida xalaltum fastaadu bu ngeen ajee ba pare mën ngeen rëbb kon rëbb dagan na yonent bi wax na ne xaj bi nga jàngal rëbb soo ko xebalee ca rëbb wa ca rab ngay rëbb te ba nga koy xebal yaa ngi tudd yàlla lu xaj bi jàpp mën nga ko lekk <clears throat> dégg nga ngir jublu ci rendi ko loolu la ñuy wax ne moo dagan bu dee pour fola waaye da nga ko rendi lekkit sib nañ ko rek waaye soxloo ko foo nga ci jublu amma rëbb goo xam ne nii nag jubluwoo ci rendi ko kooku moom dafa xaraam ndax yaa ngi lor rab wa comme ni koy ñu bari di defee rëbb am na ay ponk ak ay charte <coughs> ponk yi ñett la kay rëbbu ak la muy rëbbu ak la ñuy rëbbee ñett yooyu mun cee ak la ñuy rëbbu foo am rab wu ñuy rëbb ak ki koy rëbb ak lam koy rëbbee sartaay aji rëbb ji nag mooy mu doon julit xàmmee loo rek la koo xam ne nii xéeféer la di ahlu kitaab la bu rëbbee kenn du ko lekk ndax du jullit te waxoon nañ ci gannaaw ne ahlu kitaab am na nu muy rendee mën nga ko lekk waaye rëbb moom bu rayee rëbb doo ko lekk koo xam ne xàmmewu dara ni ki dof wala xale bu xamagu dara bu rëbbee dara kenn doo ko lekk ahlu kitaab boobu nag wala ku xàmmewut kooku suñ rëbbee dara gaañ ko wala ñu jàpp ko te pàddu yi demagul daal yow jullit bi nga ñëw rendi ko mën nga ko lekk foofu moom jëlee ko gërëb bu majuus la sax mu dara ndem pàdd yi dama gudd yaa ko rendil sa bopp yow man nga ko lekk parce que loolu moom du rayit ko kon sartaay aji rëbb ji mooy na doon xàmmee ñaar yooyu rek la rëbb wi ñuy rëbb nag sartaya mooy mu nekk njaaxal la rabu kër kenn mënu koo rëbb xar ak bëy ak yooyu nga xam ne ci kër yi lay dëkk kenn du ko rëbb njaaxal la ñuy rëbb mooy rabu nekk sàll ba ñaaral mo yow mi rebb nang ko gis wala boko ko gisul na ci barab bo xamni ni barab buñ xam la niki ab khour wala ab got moy barab yu am eh, eh, garab yu bari ak yu demee nonu waye ñew rek nako ko dawal ci Allah ba rek lo japp baxna na déedéet nga gis rebb hebal ci sa xaj bi wala nga dem ci barab bo xamni mom barab buñ limité la mu wóor lu fi am na rab yu fi nek nga hebal ko lu mu japp baxna waaye barab bu amul benn limite demal dawal rek ci àll bi loo gis jàpp loolu kenn du ko lekk kon foo nga gis rëbb yi wala mu nekk ci barab buñ limite ñetteelu sart ba mooy rëbb woowu na nekk loo xam ne mënoo koo jàpp ren di amoo ci jàpp wala boog mën nga koo jàpp ren di sax waaye kat balaa nga koo ren moom balaa nga koo jàpp mën nga see daj bu métti risque la daal nik mu nekk ci kaw doj wala kaw garab te pour nga jàpp ko mën nga ci am jafe-jafe wala boog mu ngi ci suuf gaa waaye da nga daw bu bëgg dee doo ko mën a jàpp mën naa am soo mu rëcc la yooyu mën nga koo naa euh, maanaam yebal sa xaj bi wala sa fett gi nga jëm ko ko mu dee <coughs> dégg kon sartaay rëbb ba moom it ñett la na nekk njaal la nekk liñ gis wala mu nekk ci barab boo xam ne dañ ko limité ñetteel ba mooy na nekk loo xam ne mënu koo jàpp ci lu yomb rabu dëkk ci nit ñi ni ki xar ak nag même bu fekkee mënoo koo jàpp ren di sax doo ko mën a lekk comme ni ñuy lekkee rëbb dégg nga teewul nag am na ci borom xam-xam yi ñu ne boo ko mënul jàpp mën nga koo lekk comme ni ñuy lekkee rëbb danañ war ne ni ñuy reyee rëbb mooy jëm ko fett wala yebal sa xaj bi mu jàpp bu dee sax baax naka noonu rab bu dëkk ci àll ba waaye am nga kàttan ci jàpp ko rendi ci lu dul coono bu tat su boobaa doo ko mën a lekk ni ñu lekkee rëbb da nga koy jàpp rendi ko la rëbbee nag sàtt yi mooy na nekk ngàndaay bu ñaw bu am ñaw ka jële du weñ na am ñaw ka rek comme xottu biteel seetoog fettak paakaak yooyu na am ñëw ko daal wala boo mu nekk xayawaan boo xam ne jàngal nga ko rëbb di la xaj la nekk jur boo jàngee rëbb boo jàngal rëbb kooku mën nga ko rëbbee xayawaan buñ jàngal rëbb nag mooy boo xam ne boo ne ko demal mu dem boo ne ko taxawal mu taxaw waaye boo xam ne moom mooy dawal boppam topp rab ba te kenn xebalul ko kooku baaxut lu mu rëbb baax parce que kooku jàngaluñ ko wala boo xam ne bu xasee départ mënoo koo taxawal kooku baaxut lu mooy picc picc moom lañ ci sarta mooy boo ne ko demal rek mu dem waaye duñ ci sartaal nga ne ko taxawal mu taxaw dégg kon la ngay rëbbee benn ngàndaay lay doon te nekk ngàndaay bu am ñëw ko du nekk ab xeer rek ñëw dóor ci bopp bi mu dee xeer amul ñëw ko wala boo ab xet rek ñëw dóor déedéet lu am ñaw ka taxaw ni ma bu mën ay jam mu bënd comme paaka yooyu wala mu nekk xayawaan buñ jàngal rëbb loolu lañ mën a rëbbee dégg dégg loolu lañ mën a rëbbee kon yooyu mooy sartay yi aju ci wàllu ci wàllu rëbb wa kullu maa lépp loo xam ne xataloo rey na ko kal bu ko sa xaj al muallam bu njàngal rëbbu aw ko wala sa xoob xoob mooy picc aw al muallam bu wala xaj wala fett fa jaayis nu aji dagan la akulu lekk ko isa arsalto boo xemeree xaj bi wala picc mi ala yi ci rëbboo soo amee sa xaj nga jàngal ko rëbb boo na ko demal mu dem boo na ko taxawal mu taxaw wala nga am sa picc boo jàngal rëbb nga xam ne boo na ko demal mu dem su demee rey ab rab mën nga koo lekk waaye nag si sartaab ba muy dem yow nga topp ci rab yi def loo man def nga loo mën topp ci boo ñëwee fekk mu dee mën nga ko lekk kon yow da ngay topp yi tamit buy daw na nga ko topp noo noo ko mën a toppee rek jërul ngay sa bopp nag noo ko mën a toppee soo ñëwee fekk mu rey da ngay lekk soo fekkee reyut ko nag yow mën nga koo rendi lekk soo ko toppul nag ñëw fekk deegut avant nga koy rendi mu dee medd la bu fekkee topp nga ko nag moom avant nga koy ren di ñëw fekk na dee na mën nga ko lekk ndax moo ko rey rek dégg waaye nag ba ngay xewal rab bi wala ngay sànni fett bi wala ngay xewal picc bi dangay yéene dégg nga rab woowu bu dee benn la nga yéene rab woowu bu dee mboolool ay rab yu bari la nga yéene yëpp. su ba lu mu rey mën nga ko lekk ba nga yéene daal boobu rek nga a lekk soo yéenee benn rab moom mu rey rey beneen rab boobu doo ko mën a lekk parce que jublu woon boobu te moom paaka rek la mu ngi mel ne ngaa jël bi di rendi fa mu rëcc dem rendi beneen boobu ba nga rendi jubloo ko ci bu fekkee <clears throat> mbooloom rab la nga yéene benn boobu nga yéene rek la mën a rey nga lekk ko waaw su fekkee moom la njëkk a rey sax waaye bu dafa dem rey beneen ba pare doo rey ba nga yéene woon baaxut mu ngi mel ni rek rab bi ngay xebal mu dem lekk medd ba ci ba mu neex ko mu loolu kon ne rey rab du waa du baax rab yi nga yebal muy xaj bi dafay mel ni paak dafay dem def li nga ko sant direct rek nga doo commandé <laughs> bu jàddee ci beneen doo commandé kon su fekkee da ngaa gis yu bëri moom mu dem rey bu njëkk ba pare doo la reyaat beneen a ko mën a parce que ba nga yéene woon demul ci direct dafa rey benn pay door rey bi nga yéene waaye bu dee ba nga yéene woon la njëkk a rey te yow xam nga ne moom la njëkk a rey bu lekk ba nga yéene woon kese boobu sax nga mën a xamul nag ban la njëkk a rey daf laa lënt kon bu lekk dara rek yam rey yëpp doo ci lekk dara ndax xamoo ban moo ci daggan pour yow dégg boo gisee nag mboolam rab nga yéene benn rek bu mu rey rek baax na kon bu mu njëkk rey rek ngay lekk soo xamee ne bii moom moom la njëkk rey soo xamul bu mu njëkk rey nag soo baax xamoo bu dagan kon doo lekk benn kon boo gisee mbooloom rab nga benn rek bu mu rey baax na kon bu mu njëkk rey rek nga sañ a lekk soo ko xamee dégg soo xamul bu mu njëkk nag ah kon xamoo bu dagan pour yow. parce que ba mu njëkk a rey boobu la reen di directé ba mu ca reyaat nag boobu moom dafa jàdd ci benn rey ko pare doo reyaat boobu médd la hmm? parce que rab yi lam rey balaa ngoo suñu lekk foo mu dem rey ko direct bu jàddee nekk si leneen parce que mu doo ko rey doo ko suñu lekk <coughs> fekkee yow xebaloo rab yi moom moo demal boppam lu mu gaañ wala mu rey ko padd yi dem doo ko lekk bu ko gaañee nag te padd yi dem mun nga fekk ko foofu rendi ko mën nga lekk su fekkee da nga ko xebal waaye dafa jàdd di lekk medd ci yoon wi wala muy soxloo leneen ba pare doo door a continuer dem ci eh, rab ba soo baa doo ko sañ lekk mu ngi mel ne rek kuy leen di paaka parce que mu tegg paaka ba mu yàgg mu doo continuer waat su xam nga loolu medd lay doon dégg hmm? naka noonu it foo mu gaañ ko la nga rendi na ko gaañ su fekkee da ko màtt rek te gaañuwut wala mu fàddu ko rek te gaañuwut su boobaa duñ ko lekk danañ gën a yaatal ci loolu mooy gaañu mooy mu nàcc wala mu dagg tey gaañuwut defut dara fàddu noonu rek mu dee noonu loolu medd la doo ko lekk bu ko la nga xam ne an fasat wóyal na aljawaari wa rëbb yi maqaatilu ay paddam tabla qudrate ka njëkk ngay attan ala zakaat yi ci rendiku su fekkee sa rab wi da koy xebal ci ab rëbb mu dem gaañ ko ba pàdd yi dem dégg nga <coughs> su boobaa boo ñëwee fekk mu dee di la ba ngay ñëw mu ngi dund sax bu dee mën nga ko lekk xam nga pàdd yi dem na te yow tamit yaa ngi ko toppoon ni nga ko war a toppee yéexoo dégg nga ñëw fekk ku muy dund avant ngay rendi mu dee mën nga ko lekk <coughs> parce que rab bi rey na ko rek kon boo ñëwee fekk ko mu rey mu rey ko mën nga ko lekk boo ñëwee fekk ko nag pàdd yi dem hmm, ren di rek waaye nag bu dee danga koy jéem a mu far dee ah mën nga ko lekk dii la ba ngay ñëw mu ngi dund dégg nga hmm. kon loolu la kon bu fekkee pàdd yi dem na waaye mën nga koo rendi dañuy sopp nga rendi ko rek waaye boo ko rendiwul su boobaa bu dee mën nga ko lekk ndem rab waa ko rey ba yóbbu pat bi la dégg <clears throat> wama loo xam ne jot nga ko nag maanaam mën nga koo rendi xable in njëkk muy fëlal li maqaatil yi ñeel padd ya lam yukkal duñ ko lekk illa bi zakatin lu mooy ci rendi dégg nga maanaam su fekkee <clears throat> da fekk rab bi gaañ ko gaa waaye pàdd yi dama gut te mën nga ko dindi ca rab wa balaa mu koy rey walla mu yóbbu pàdd yi ah su boobaa da nga war a fexe dàq raboo mu bàyyi ko su ko defee nga rendi ko daal di ko lekk soo ko bàyyi rab bi ba rab bi rey ko duñ ko lekk ndax métti la même bu fekkee rab waa ngi ca waaye pàdd yi demagul te man nga ko aaye jàpp ko rendi ko noonu ngay def soo ko bàyyee ba mu rey ko kenn du ko lekk dégg nga hmm? parce que loolu la naka noonu it bu fekkee sarab bi dafa <clears throat> gaañ benn rab bu ñu ko xebaloon yow afaa ngay yegg si keneen romb na fa ba keneen ki ñëwee <coughs> dégg nga Eh, man koo jàpp rendi ko te pat bi dara demagut waaye man na koo jàpp rendi ko mu bakk foofu bakk foofu bakk foofu ba moom moo lay fay <laughs> lay fay xaymaab rab woowu wuñ gaañ ba pare dégg nga waaye boobu médd la kenn du ko lekk kon bu fekkee da koo ko romb te pat yi demagut nga bakk ba mu dee medd la bu ko keneen rombee te pàddu yi demagut mu bokk ba mu dee moom moo lay fay dana ko war a rendil su fekkee nag yow avant nga dem la ko xaj bi rey moom boo ñëwee rek mën nga lekk boo ñëwee fekk xaj bi reyagut ko waaye part yi dem na liñ sopp rek nga rendi ko lekk waaye bu dee avant koy rendi dara nekkut si kon sa xaj saa yu ko reyee moom mën nga lekk dégg nga bu kullu maa lépp loo xam ne sittaxoo rëbb nga ko bi saxmika sa fet aw rumxika wala sa xeej fa kulhu na nga ko lekk fa in adrakta ndem jot na jot nga zakaatuhu rendi ko fa zakkihi na nga ko rendi soo sànnee sa fet wala sa xeej ci ab rab waaye ba nga koy sànni da nga ci yéene rendi tudd nga bismillah bul fàtte loolu da ci yéene rendi boo yebal xaj bi te dañuy wax bismillah ndax xaj bi ak fet gi taxawaayu paaka la ñu dégg nga soo ñëwee fekk mu dee nang ko lekk dégg nga benn adrakta boo jotee zakatu rendi ko fa zakki na ko rendi bu fekkee da ngaa sànni fett bi mu jam ko waaye pàdd yi dama gut ko war a rendi dégg nga bu fekkee nag <clears throat> da koo jam pàdd yi dem na euh, waaye nag yow ñëw fekk nga deewagut dañu sopp rek nga rendi ko door koo lekk boo ko rendu lekk mu dee mën nga ko lekk parce que fàddu yi dem na dégg nga naka noonu bu fekkee da ngaa jug di ko rendi mu far dee it kooku mën ngaa lekk kon boo ko jëmee fett walla xeej fàddu yi demagut da nga koy war a rendi lekk ko boo ko bàyyee ba mu medd xaraam na doo ko lekkati bu dee xet fett yi wala xeej bi jam na ko ba fàddu yi dem su boobaa <clears throat> dañuy sopp rek nga rendi ko lekk ko waaye nag boo ko rendi baax na dégg wayn maata dem deena wayn faata di deena bi naf ci ci boppam faata mooy deena dangaa ñëw fekk fett bi jam ko mu dee fëkkulu lekk ko ida xataloon ne mbéy na ko ko sa fett wala sa xeej bi maanaam yi bit fekk ko ci yow <coughs> maanaam bu fekkee da ko sànni sa fett gi mu dee mën nga koo lekk waaye bu fekkee dafa fanaan nga xëy ñëw fekk fett gaa ngi ci kawam nee na loolu dafay xaraam nga lekk ko de fanaan fa guddi gi yëpp sax lenn ci guddi gi la ci fanaan xanaa ba nga xëyee ngi fett gi ci biir nga ko jëm dee na nee na xaraam nga lekk ko ah, loolu nag wutee nañ ci dégg hmm, moo tax mu ne آه، وقيل وحنا إنما ذلك نقول فيما بات جنا خن فنان نان كتشو مما قتل وغلته ما يخم رينك الجواره ربيع نينا لين وحنا بو فنان سنيتو قول لك مولا خن سقط ولا سرب هو يبل موك راي نقي فك كفا أسوبا باور لقج باك راي ولا لنان لموكو موك راي دين سوبا لول دبي <coughs> دبي حرام amma fett moom boo fekk mu ngi nekk ci rab rab wa ah, nga gis mu rey ko loolu moom lay xel di gën a jàpp mooy ne fett yi ko rey su boobaa mën nga koo lekk teewul nañu ne fett rab bi yëpp ci parce que guddi moom rab yi dañoo bëri mën ngaa jëm du mu jam ko waaye beneen ñëw mottali ko mu mu dee moo tax ñu ne xaraam na kon su boobaa bàyyi ko moo gën rek ndax lu ñu naan xaraam na xaraamul moom toog di ko lekk moom yaa ngi ci risque <clears throat> kon du fanaan ak sa fett gi ñi ne ne xaraam na ñi ne xaraamut parce que xamoo lu ko rey lu fanaan ak sa xaj bi moom wala rab yi ngay rëbbee moom xaraam na nga xamoo lan moo ko rey boo xamul dagan naam rek bàyyi dégg nga waaye nag bu dee ne wóor na la xaj baa ko rey moom fanaanut wala fett gaa ko rey ba mu dee su boobaa mën nga ko <coughs> lekk moo tax am amma sahmu waaye fett yujudu bu ñu fekk fi maqaatili ci paddam maanaam ci fañ ko reyee fala baas ayit bi akli ci lekku nee na fett moom nga ñëw fekk ko ci rab yi bu fanaanee yi am na ñu ne man nañ koo lekk ndax dara nekku ci balu fetal borom xam-xam yi wutee nañ si ñii ne mën nañ koo rëbbee ñi ne nañ koo rëbbee moom moom dafa mel ni si ñuy wax ne mënuñ koo rëbbee ci la bokk moom borom sarxa bi teewul da ngay fekk si yeneen téere mën nañ koo rëbbee dégg nga mbaal wala fiit go samp bu rayee rab bi doo ko lekk parce que amul ñaw ka xet amul ñaw ka lum ray, doo ko mën a <sniffs> lekk dile fekk nga ko muy dund sax waaye pàdd yi dem na doo ko mën a rey lekk ko su fekkee ne fekk nga ko muy dund waaye pàdd yi demut su boobaa mën nga koo rendi lekk ko waaye yii bu rëbbee nga ñu fekk ko muy dund waaye pàdd yi dem na xam ne boo ko bàyyi mu dee doo ko mën a doo ko mën a par ɗiɗi mum nonko hoore ndi <coughs> nonko hoore lekk ko nee na lañ wax ne la borom xam-xam yi wax ne loo jëm fetal bu pàdd yi demee it mën nga koo rendi lekk ko nee na loolu du suñ ngir pourtant nag da ngay dem fekk siraaju salik muy wax ne fetal moom li gën a siiw mën naa rendi te kooku ngiram maalik la xaw ma nag dafa jiitu si borom siraaju wax xaw ma allah alam <coughs> xam-xam kenn peegul lépp moo tax mais Siraaj Saalik moom nangu na rëbbee fetal moom nag nee na loolu moom du si du suñ ngir la nga rëbb yi faw sarab bi gaañ ko moo xam fett wala nangam faw mu gaañ ko nga door ko ma lekk bu ko màttee rek mu dee du baax faw mu dagg nopp ba wala tànk ba wala dagg dara ci moom loolu mooy gaañ gi gaañ gi daal mooy deret ji tuuru wala mu xotti der ba bu deret ji tuuroo di la ca der ba dara baax na bu der ba xottee koo <clears throat> te deret ji tuuruwut kooku am na ñaari wax ñu ne mën nañ koo lekk ñu ne mënuñ koo ñu ne mënuñ ko lekk dégg waaye nag moom nee na mm, li gën a wóor daal mooy der ba bu xotteekoo rek mën nañ ko lekk dira deret génnut ndax ñoom dañ na ko gaañ rek ñàkk gaañ mooy mu matt ko nii te xotteeku wala mu fàdd ko kon nga dee gis ne bu xotteekoo rek gaañ na ko dira deret mën nañ ko mën nañ koo lekk <laughs> nee na sax yaram bu xotteeku moo gën a xëy deret di tuuru te xotteeku kon bu deret génnee rek jëre yaram bu xotteeku wut mën nga ko bu yaram bi xotteekoo dira deret génnut mën nga ko lekk ñaare bu ñu àndee rek mooy mu xotteeku deret génn su boobaa loolu it mën nga koo <clears throat> mën nga koo lekk kon rab yi ngay rëbbu foo loolu am ci nga door koo mën a mën a mën a mën a lekk dégg nga su fekkee nag <coughs> dangaa ñëw fekk rab bi dagg ci yaramu rëbb wa dara su fekkee lam dagg yóbbu na pàddu ya yóbbaale na pàddu lam dagg mën nga koo lekk dégg nga moo xam lam dagg mën na génn wàll yaram ba wala mosul génn wàll yaram ni mu yóbbu na pàddu yaram mën nga ko lekk <laughs> waxoon nañ su fekkee lam dagg yóbbuwut pàddu ba bu dee lam dagg mën na génn wàll yaram ba mën nañ koo lekk bu mutul génn wàll nag kenn du ko lekk ndax loolu medd la su defee da hmm? kon lam dagg bu fekkee mutul genn wàll yaram ba te yóbbuwut pàddu ba kenn du ko lekk bu dee nag mën na génn waa yaram ba soo waa danañ ko danañ ko lekk walaa tuukal duñ lekk in sietu ko jub nit bi maa yuukalu ci la nga xam ne danañ lekkee bii ci moom saydu rëbb rëbb <clears throat> nañ koy lekkee mooy lii mën a jàngal ay gaañ ak nangam mu dee nga lekk loolu kenn du ko lekkee rab yu dund ci biir nit ñi rab yu dund ci biir nit ñi moom rend rek la man boo ko mënul rend nag mën nga koo loj jëlee rendi moo doon cosaanam bu doon loj mooy cosaanam comme gëlëm mënoo koo loj mën nga ko rendi waaye cor ko di ko jama fetteeg yooyu ba mu dee wala nga yebal ab xaj mu di ko jàpp di ko rey yooyu loolu moom duñ ko ko lekkee dina am nañu ne bu la téyee mën nga def loolu <coughs> dégg ah. amaa yent yent yi mooy rab yu dëkk ci kaw suuf njéeréel yeeg melentaan yeeg gunóor yeeg soccër yi am nga dagal nañu lekk waaye nag rendi ko dégg euh, mooy loo mën a def ba mu dee rek loo mën a def ba dee rek moo xam dangay ngay dóor dàll moo xam da koy waddal si ndox mu tàng jubli si rendi loo ko mën a def ba mu dee jubli si rendi rek loolay <coughs> loolay rendi ko dégg nga kon rendi ñeenti xaaj la <coughs> rendi la def xar ak loj mooy jam giram ci potax ga ba mu dee ak cor mooy lañ la jàngal léegi ci wàllu rëbb moom dañ koy cor jam fett ak wala bàyyi ko rab bi mu rey ko ak loo xam ne loo maa def ba mu dee baax na te loolu njaal yi rab yi ndaw yi dund ci suuf loolu yooyu lañ koy def loolu mooy seen at dégg nga <clears throat> wala haqiqatu la mustahabatun buñ sopp ngénte sunna la suñ sopp sopp bu xoyof maanaam sunna la su oyof la bëgg wax moo tax ne sunna buñ sopp la dëgërut dégg nga hmm? yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi def na ko dégg kon ngénte sunna la suñ sopp su dëgërut sunna ak ngëneel ak farataag yëpp jaamu yàlla la rek waaye lañu wutee daal mooy mooy tiyaaba yi bokkuñ dafa am ñuy wax ne lu yonent bi def sax si feeñal ko ci mbooloo loolu mooy na su fekkee feeñalul ko ci mbooloo waaye ñaax nañu def ci ñu tuddee ko xememteef su fekkee feeñalul ko ci mbooloo ñaaxul nit ñi ñu def ko maanaam waxul lenn luy tax nit ñi fonk ko loolu moom lañu tuddee lu ñu sopp dégg nga xam-xam nag ñoom ñaareel bu ñu waxee lu lu dul lu war rek dañu koy tuddee sunna waaw ndax yépp yonent bi def na ko rek kon ngëneel kon ngénte mën ngaa jàpp ne am na ci bu waxi borom xam-xam yi boo ne mooy sunna bu oyof nekku bu dëgër boo reyee benn gàtt rek doy na bisab juróom-ñaareel ba ba mu juddoo bisab juróom-ñaareel ba ci nga koy reyal benn benn gàtt xale bu nekk rek war nañ ko reyal ab gàtt wuyu àq danañ reyal gàtt ani mawludi ci xale ba yow ma saabi yi ci bisab juróom-ñaareel kenn du ko rendil gàtt njëkk bisab juróom-ñaareel noonu loolu nee na loolu ittifaaqan la ittifaaqan nag xanaa ngir mi lay wax ngiram Maalik dëppoo nañ ne rendi te bisab juróom-ñaareel bu ñëwagul moom daganut te am nañu ko nangu dégg <coughs> gannaaw bisab juróom-ñaareel ba mooy bisab juróom-ñaareel bu paasee nee na li gën a siiw mooy duñ lay gàtt ba ndax bisab juróom-ñaareel ba bu paasee rek waxtu wañ ko war a rendil paase na comme tabaski rek ñetti fan bu jeexee jeex na kon kenn du ko rendil gannaaw bisab juróom-ñaareel ba teewul da nga gis ñu ne am nañu ne bisab juróom-ñaareel bu paasee it mën nañ ko mën nañ ko rendil <laughs> bu bu bis ba dellusiwaatee waaye teewul moom neen li gën a siiw loolu da da jaarul <clears throat> wuta mu dem koor moom bu wéyee danga koy fay ndax dafa war waaye tabaski ak lii nga xam ne moo di ngénti seen waxtu bu jàllee kenn du ko duñ reeraat gàtt bi dara ci nii ma ko waxee moom dégg kon ku am xale bu góor bu jigéen nguru ngaana doom ji gor la jaam la yaa ko da ko reyal gàtt bu dee Jambi bi mu am doom maanaam doomi jam la nak nag balaa moo reyal doom boobu gatt sangam moko ci mbey ndigal denga ngiram shafi mom ak talibam ibn Hanbal ñom dañu wax ne doom ji bu goor la ñaari gatt nga koy reyal bu jigen la ben gatt waye malik mom goor ak jigen yeb ben gatt rek ngay ray ndax yoonte bi reyal kuy naka noonu Xuseynu benn kuy la ko rayal te ñoom ñaar ñoom ñëpp góor lañu dégg nga hmm. Ibnu Habib ci ngiram Shaafi ngiram Maalik la bokk waaye moom la Shaafi wax ak Ahmad loolu la loolu la gën a jàpp moom Ibnu Habib ndax nettal nañ ci Aïchatu dégg nga euh, euh, <coughs> euh, lu mel noonu mooy mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle na xale bu góor ñu reyal ko ñaari gàtt bu jigéen benn gàtt moo tax atta ibnu rusdi nee na ku jëfee li Shaafi wax ak Ahmad juumut mooy góor nga reyal ko ñaari gàtt jigéen benn benn gàtt nee na gisuñu it ci ngir mi di ngiram Malik benn tontu buñ indi ci hadis boobu dégg nga dégg waaye nag moo nañ ko tontee nag xëy na yonent bi namm gi namm ne nañ reyal góor ñaari gàtt moo dañ ko sopp rek waaye teewul boo ko reyalee benn gàtt mu baax ndax dafa duñ ko dafa xasan ak Ousseynou benn gàtt la leen kon boo mën a rey góor ñaari gàtt nga def ko <coughs> comme chaf yi dara nekkul dégg ka nga xam ni moo war a reyal xel xale bi gàtt nag mooy baayam jëlee xale bi am na alal baay ji moo ko war a reyal gàtt nag moom alalam ci lañu jël reyal ko gàtt waaye du ñu wax ne mbokkam wala bàyyi taxam wala nangam na ko reyal gàtt déedéet moom jirim bi bu amee alal nañ ko moom alalam ci lañ war a rey ci lañ war a rey gàtt jël jënd rey gàtt moom jirim bi bàyyi ji bu amul alal du leb wàcc na ko ndax tabaski moo gën a dëgër te tabaski boo amul alal wàcc na la dégg kon danañ ko rendil gàtt yow ma saa bi bis ab juróom-ñaareel bi danañ ko rendil bi saatin ci gàtt mis la ma zakarnaa comme gàtt ñu tuddoon min sinin udhiya ci atum tabaski na mel ni tabaski dégg nga na mat at bu dee gàtt la dégg nga wasifata ak melawa mela yi ñu waxoon ne gàtt bu mel noonu moo man tabaski bu ko mel matu tabaski noonu lañ koy waxee waxaatee fii dégg nga mm, <coughs> bu dee gërëm la na dugg ci atam juróom benn bi bu dee nag la na dugg ci atam ñeenteel mi bu dee xar la na am at bu dugg ci atam ñaareel mi béy noonu di la xar wute woon nañ ci dégg comme nañ ko waxoon ci tabaski daal noonu lañ koy waxee ci ngénte na nga moytoo rendi guddit dégg nga bu rendee guddi du baax rendi bu jant bi fenkee ba tusubaar diggante boobu ci lañ bëgg mu rendi di la bu rendee ci bis bi ci fajar gi avant jant bi fenk dañ koy sikk comme nañ ko jàngale woon teqale woon ci wàllu ren di fare wala yox sabu duñ compter fi sabaati ayaami si juróom-ñaari fan yi al yawmu bis nga xam ne wuli da jur nañ ko fii ci moom bis ba mu juddu <coughs> dégg nga bu jiitoo fajar bi <coughs> bis boobu duñ ko duñ ko compter maanaam bu fajar jotee ba pare mu door a juddu bis boobu duñ ko compter wala ci fan wi waaye bu fekkee avant fajar jot la juddu dañ koy compter ci lu benn wuute. tey la ban bis tey la àllarba fi nekk nii ñu ngi nii àllarba instant yi fekk na fajar jot na ba pare nii fajar jot kon comme ko fajar jot na dañuy compté wàllu àllarba gi dégg nga hmm? muy eh, maa ngi maa ngi jum duñ que fajar jot na ba pare mhm. bu fajar jotee ba pare mu door a judd bis boobu duñ ko. comptoiré bu fekkee avant fajar jot na la judd bis boobu dañ koy comptoiré ci loolu benn wute léegi àllarba nii saa fajar jot na la pare kon alxames lañ commencé alxames àjjuma samedi dimanche altine talaata àllarba mooy nekk ci gént bi bu doon nag si démb ci guddi gi la avant fajar di jot nii si bisu àllarba gi xam talaata ci guddi gi nga xam ne bés rek mooy àllarba soo baa àllarba gi dañ koy comptoiré parce que bis moom bu fa bu timit jotee rek bis bi dugg na soo baa na àllarba alxames àjjuma samedi dimanche altine talaata mooy nekk ci bi kon bis bu mu juddu kenn du ko compter mooy su fekkee fajar dafa jot ba pare mu door a juddu bis boobu kenn du ko compter bu fekkee dafa juddu nag avant fajar di jot su boobaa bis dañ koy compter kon bu juddoo guddi te fajar jotagut bëccëg ba weesu mooy mooy ngént la bëccëg ba ca gannaaw avant guddi googu bëccëg boobu mooy nekk la bu fajar xasee jot nag mu judd. bëccëg bi ci kanam mooy nekk ngént la kon bu ñu ne la doom judd na rek xoolal kañ la judd bu dee diggante ba fajar jotee la ba timis diggante boobu ci la judd bëccëg boobu mooy nekk ngénte li su fekkee nag <clears throat> diggante timis la ba fajar di jot bëccëg bi ci gannaaw timis boobu mooy nekk ngénte li te àllarba instant yi ni kii jot na fajar jot na ba pare dégg nga su boobaa doo kontaale àllarba alxames ajuma samedi dimanche altine talaata àllarba même bëccëg gi nii mooy nekk ngént li même bëccëg gi que fajar jot na su nag démb ci guddi gi la la juddu boobu jotee ba ci kii bi su boobaa da ngay compter waale àllarba gi àllarba alxames ajuma samedi kon bëccëg bi weesu mooy talaata goo mooy. mooy ngénte ga dégg nga moo tax mooy walaa yox sabu duñ kontaale fi sabat ayaam ci juróom-ñaari fan yi alyawma alladi bis bi nga xam ne wala da jur nañ ko fii ci moom dégg nga loolu kenn du ko kenn du ko kontuwaale waaye wax naa ne mooy bu fajar gi passé bu pare dégg xale bi nag balaa ko reyal doom <coughs> mu dund ci bisab juróom-ñaareel ba su fekkee nag bisab juróom-ñaareel bi dafa jot njëkk ñu koy Euh, rayal ngént la mu dee kenn kenn du rey dara dégg parce que avant ñu rey dee na balaa ngaa sañee ren nag fajar bi sa juróom-ñaareelu fajar jot comme nuñ ko waxee woon fële waaye bu fajar jotagut su boobaa doo doo sañee de watus <coughs> boobu danañ ko rendi daxwatan ci yoor yoor ndax moo ko xat yu ak tabaski ñoo yem waaye soo rendee njëkk fajar gannaaw fajar njëkk jant bi di fenk baax na waaye def nga defoo luñ sopp soo rendee ci guddi gi nag doom ji soo baa baaxut li gën mooy bu yor yor jotee balaa tusubaar nga rendi boo rendee gannaaw tusubaar ba jant bi di soo diggante boobu loolu kii nañ ko mu tuddati euh, sib nañ ko wax na ne nag moom nee na moom bu bis bi paasee bis bi rendi waxtu ren paas na kenn du ko fay te am nañu ne da ngay bu beneen bis bi jël ci nga rendiwaat ko walaa yamusu du laalal asabi yu xale bi bi seen ci dara min demee ci deretam jël deretu gàtt ga fay di ko taqal xale bi loolu dañ koo sib dégg loolu jaahile yi ñoo ko doon def wayu danañ lekk min ci gàtt googu lekk gi nag waa kër ga ak dëkkandoor yi ñoo ci lekk dégg nga sa sadaqu danañ ci saraxe buñ ko toggee ak gannaaw buñ ko njëkk ñu koy togg yàpp wi yëpp mën nañ bëgg nañ nga saraxe ci yàpp wi dégg nga <coughs> watuk saru danañ damm azamaha yax yi bëgg nañ nga damm ko wuteeg way jaahile yi ñoom bu ñu leen daan gàtt tudd duñ damm yax ya ndax yaakaar ne buñ demee yax yi eh, xale bi mën naa am problème dal ko eh, yax gàtte yaxu xale yi du dara jotewuñ kon mën ngaa dem mu yax ya ndax wuteeg jaahile yi waaye nag <laughs> lañ miin fii ci réew mi loolu dañ koo sib ci wàllu eh, ngénte ngénte nga def ko comme céet xoo nit ñi ñuy ñëw hmm? dajale nit ñi hmm, loolu dañ koo sib dégg nga ndax mag ñi baax ñi daawuñ def loolu pogare yi lañ ciy bañ ngénte ñoo bëgg mu simple rek maanaam kenn jël toggal yàpp yi ba pare ñam ba mu baax kenn ku nekk nga yekkal ko fa mu nekk waaye bëgguñ nga woo ñu daal di ñëw boo leen xoowee ñoom it ñu ñëw baax na de waaye la nga def sim nañ ko jërul ngay baa mu waat ngeen tëri waaye la nga def sim nañ ko nag dégg nga wayn alaq wayn xooli xandem nga wat nañ chanru rasin mawlud yi karawu bopp kañ jigéen la mën nañ ko wat wat gi nag njëkk ngay rendi gàtt ga la balaa ngay rendi gàtt ga na wat karaw ga dégg nga boo ko watee watu su deqaat ñu saraxee bi was nii la toll ni karaw ga min zahabin ci wurus aw firatin wala xaalis fa daalika loolu mustahabu luñ sopp la bu la neexee man nga koo wat su ko defee nga xool nu mu war a toll boo ko peesee nu mu war a toll ci wurus xaalis loolu du bari nga daal ko saraxe parce que karaw gi loolu tuuti la fa daalika loolu mustahabu luñ sopp la asanun lu lu rafet la dégg ndax nee na ñëw na ci mu watta dégg ne Fatima doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa peese karawu Xasan ak mais peese lañ kon karawu Xasan ak Xuseynu ak Zeynabu ak Umu Kaasim ñu saraxee lu toll noonu dégg nga daal di ko. joxe ci wurus nettali na ne karaw xasan ak xuseynu ak zeynabu ak umu kasim kaltum dégg nga peese nañ ko daal di ko saraka num toll ci xaalis dégg nga <coughs> naka noonu yonent bi sallallahu wax nañ ne rayal na xasan benn kuy mu ne yow Fatima <coughs> saraxeel watal karaw ga te nga saraxelu toll ci xaalis kon Fatima war na karaw Xasan ak Ousseynou saraxelu toon noonu ci xaalis <coughs> dégg comme que loolu def nañ ko loolu loolu loolu nga ko def wayen wayen wayen xulli xa nem gëttal nañu la asoo bu xoom bi xuluuqin ci gëtt badala remplacé ko mu ne demil la yi ci dara ji nga xam ne kaara nekk na tafanul di def ak jaaxle way réer baasi déet ay bizaar yi di nekk ci loolu way réer naan lay gàtt gi jël dara ji ci euh, xale bi yow nag bu fekkee dangaa jël parfum bu neexet nga wat karaw ga taqal ko ca bopp ba remplacer ko dara ji nga ko doon taqal loolu dara nekku ci <coughs> man ngaa def loolu yow kon hmm, comme kii bopp ba mën nga ko wat comme nu ko Fatima defoon ci Xasan Useynu saraxelu toon noonu ci xaalis dégg nga eh, ko defee bopp bi mën nga koo taqal parfum remplacer ko deret ji nga xam ni jaaxle yi dañ ko doon taqal xale bi dégg maanaam <clears throat> des na yeneen yoo xam ne sopp nañ nga def ko ci bisab juróom-ñaareel bi mooy soo ko tuddee ba pare soo ko soo ko euh, rayalee gàtt ba pare na nga ko na nga ko tudd dégg eh, su fekkee dafa génn àdduna nag te joxaguñ ko tur boroom xam-xam wutee nañ ndax dañ ko jox tur wala duñ ko jox duñ ko jox tur kooku boroom xam-xam wutee nañ ci Maalik daf nañ duñ ko jox tur Ibnu Habib nee na danañ ko jox tur ndax tur woowu mën naa mu nekk tur woo xam ne dana am barke mu romb ko waaye daal xale boobu jë jërul wutal tur li gën a siw mooy comme que génn naa dina jërul wutal tur wutal tur mu àq baaji rek boo mu def ko boo mu ñàkk ko def waaye nag <clears throat> bu fekkee mu ngi dund moom dafay war ñu wutal ko tur te bëgg nañ mu tànnal ko tur wi gën ci tur yi tur wi gën ci tur yi nag mooy bu commencé abdu abdullahi abdurahman dégg nga wala nga seet tur wu rafet rek ndax yoon tuddee na Xasan ak Xuseyn tur wu bon nag moom dafa xaraam nga koy tuddee sa doom <coughs> niki xarbun xusnun njàqare tur woo xam ne dafa am barke dañ koy aaye mooy turu sell bu ëpp comme barakaag yooyu teewul nit ñaa ngi koy tudd turu malaaka it ne dafa xaraam nga tuddee ko sa tur sa doom comme Jibril ak Israfil ak yooyu teewu ni ñaa ngi koy tudd dégg nga achab nee na yellut nga tuddee sa doom yaasin wala hakim wala aziz xam nga yooyu tur yàlla la it dégg nga ah teewul nag nee na tuddee nañ yonent bi tuddee na àlli tuddee nañ àlli na àlli te xam nga àlli tur ak tur yu sellal nit la te loolu kenn wedduwul ko moo tax yooyu daanaka jarut kii tur yu bon yi daal ak turu malaaka yi ak turu yàlla yi mën nga ko bañ a tuddee kenn léegi waaye turu sell moom loolu dara dafa mel ni nekku si ndax àll yi kaweel na ko waaye dara nekku si dégg nga teewut nag wax nañ ne ture tuddee turu malaaka xaraam na waaye maarik moom dafa sib tuddee turu jibril kon ñu déggee si ne kon luy xaraam mooy nga tuddee ko tur woo xam ni mooy seef malaaka yëpp nga ne ko malakul amlaak malaakay malaaka yi waaye boo ko tuddee turu malaaka rek su boobaa maali neen loolu duñ ko sip ni ki jibril wala israfil wala wala yu demee noonu dégg nga waaye boo ko tuddee nag malakul am malaaka yi malaaka yi su boobaa loolu dañ koy dañ koy sip dégg nga eh, loolu sopp nañ ko <coughs> eh, xale bi bu juddoo it sopp nañ mu nodd si nopp ndeyjoor bi liqaam ci nopp càmmoñ bi loolu sopp nañ ko sopp nañ it biir ba lu neex jiitu ci lu neex na ci jiitu lem wala yu demee noonu loolu loolu sopp nañ ko dégg nga ko defee nga wutal ko tur gannaaw buñ ko watee reer ko gàtt ak yëpp <coughs> dégg nga xaraf sunnatun sunna la fi zukuri ci góor ñi xaraf moom mooy dagg rek deru der bi nëbbu bopp sàkkara ba ba bopp sàkkara bi mën a feeñ sunna bu dëgër la ci góor ñi ku ko bàyyi taamun ngant mënul jiite mënutu seede dégg nga ibnu shihab sax nee na lislaam balaa moo mat borom xaraf dégg kon sunna la ci góor ñi fañ ko soppee nag ci Malik mooy ba nit ki demee ba foq mooy bu mu amee juróom-ñaari at ñu digal ko muy julli ci lañu sopp ñu xaraf ko dégg nga bëgguñ nag nga xale bi judd rek nga daal di ko xaraf ndax nee nañ loolu yahuud yi ñoom ñoo ko doon def dégg nga euh, <coughs> bu fekkee nag am na sabab yu tax nga koy def ndax ragal nga ne bu xaraf bi boo ko bàyyee kat bu demee ba màgg xaraf mën naa am problème ak yooyu ah su boobaa mën nga ko teel a xaraf waaye daal bu dee war nga ko mën a bàyyi ba màgg nga bàyyi ko ba màgg ba am juróom-ñaari at te xaraf ko moom moo moom moo gën ku judd nag fekk yàlla xarafal na ko boppam borom xam-xam wute na ndax dañ ci rombale paak rek wala dañ koy bàyyi noonu comme koo xam ne xaraf nañ ah, ñii ne dañuy jël paak rombale ko foofu rek waaye duñ ko dagg nag ñii ne dañ koy bàyyi noonu dégg nga waaye comme que yàlla xaraf na ko daa yàlla xaraf na ko wala xifaatu tonni tonni daanaka mooy xaraf rek fini saa yi si jigéen ñi makrumatun teraanga la xam nga kanamu jigéen dafay am lu mel ni kii ab ganaar noonu ñu dagg ko loolu xarafal jigéen loolu nee na triangle la maanaam luñ sopp la dégg nga eh, <clears throat> am na ñu la comme ni nekk xaraf góor góor mm, nekkee sunna moom noonu la nekkee sunna dégg te borom salaa bi nee na loolu dafa mel ni xenu na maanaam ndax jigéen ñi ñooy xaritu góor ñi maanaam dogit lañ ci góor ñi kon la rafet ci jigéen ñi rek dafay rafet ci góor ñi Medina am na benn jigéen ñu doon wax Ummu Atiya moom moo doon xaraf jigéen ñi yéen daan daan ko wax na leen dagg dagg tuuti bul dagg bu baax a baax su daggee tuuti loolu mooy tax kanam gi gën a taaru mooy taxit sawukaay bi gën a baax ba nga xam ne du am yenn problème yi waaye teewut xarafu jigéen it su fekkee nit ñi mënuñ ko ba mu indil nit ñi ay gàllankoor. dañ ko a bàyyi ndax luñ sopp rek luñ sopp moom bu naree lore dañ koy tegge luñ sopp la waaye ci ku ko man ku ko mënul nag bay lor nit ñi di gaañaat ak yooyu mm, su dañ koy bàyyi <coughs> ngënu ngaana boo xam ni dafa am sowukaay góor ak bu jigéen mm, nee na gisuñ benn taxi bu ci wax dara waaye ci saafi ñoom ngiram saafi ñoom wax nañ ci ñaari wax ñu ne ngënu ngaana boobu dañuy xaar ba mu mën mu kalaf ñu door koo xaraf dégg nga ah, su boobaa wutee nañ kan moo ko war a kan moo ko war a xaraf dégg nga moom ngunu ngaana boobu <coughs> moom nag lam tànn mooy ne moom mooy xaraf boppam ndax julit bu fekkee lii bu ko defee lislaam day mat te xaraam na nit ñi defal ko ko su boobaa moom mooy moom mooy xaraf moom mooy xaraf boppam waaye bu dee mag la duñ bàyyi kenn koo xam ni mooy ñëw di di xaraf di xaraf di xaraf mënu nga ànd boobu dégg nga maa su fekkee du mënu nga nag kuy xaraf bu dee góor la jigéen xale yi góor yi la góor ñaa leen di xaraf bu dee jigéen ñi la nag jigéen ñi ñoo leen di ñoo leen di xaraf dégg nga waaw waaye nag bu dee ngunu ngaana bu am sowukaay góor ak bu jigéen bu góor bi dañuy xaraf nag dégg nga buñ koy xaraf bu góor bi la ñuy xaraf te moom mooy xaraf bu xam bu dee mat na mu kalaf ndax ngërëm saafi dafa dañuy xaar ba man mu kalaf ñu door koo xaraf su boobaa mooy xaraf bu xam ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la jàng ci tur yi kon tuddee turu malaaka <coughs> jàppal na dañ koo sipp nga tuddee ko tur turu kul am laa dañ koo tere tuddee sa doom turu bon tur comme gée rek gayndeeg ku ñàkk soloog yooyu dafay xaraam ndax yaa ngi lor yaa ngi lor xale bi ko xel bokk na ak yi nga xam ne nii waajur yoral na ko doomam mooy mu fexe ba mu man liir ba mu mën liir nag daf ciy dugg mu mën a liir li nga xam ne ñooñ jamonoom noonu la ñuy doxalee bu dee dëkk ba français fay dox na mën a liir français ndax bu ko mënul ëllëg mën nañ koo signé looloo xam ne nax ko yow waajur bi yaa ko amee nax boobu kon ni mu ko war a jàngalee bu mën a lire arab man koo bind ba lu mu bëgg a xam lu ci diine mu war koo mën a jàng noonu nga ko war a jàngalee ba mën a liir langue bi nga xam ne mooy dox ci dëkkam ba lu mu gis mën a xam lii lu jaadu la wala du du lu jaadu loolu àq la boo waajur bu nekk yoreel doomam su ko defee na rafetal turam kon bu mu ko wutal turu bon su matee mu kalaf mu may ko soxna balaa muy dugg ci yenn yi nga xam ne nii lu yàlla xam doy na. لو العقل يهاجرونك يردهم إن أريد الإسلام والصمت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلى أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته